ñi ngeeg euh, Moussa Sarr bi nga xam ne moom moo yor kàdduk LD ñu gis ne démb euh, ñenn ñu banqaasoo ci LD tuddee seen bopp LD debout yëkkati neen kàddu ne dañuy jëm ci congrès te dañuy jaayum carte loolu mbir moomu noo ko gisee. waaw jërëjëf euh, loolu dégg naa ko tey maa ngi nii Kaolack dégg Kaolack laa ko déggee ci seen collègue yi ne waa LD debout dañu nar a ay carte convoqué congrès. parti bi au mois de mars deux mille dix huit li mu ci li ma ci mën a wax rek mooy loolu àndul ak charte parti bi ñun dañuy def benn bureau politique le vingt et un bi passé bureau politique gën na ay décision yu bari ci décision yooyu li ma ci mën a wax rek mooy bureau politique dafa wax secrétaire général par intérim Nicolas Ndiaye mu ànd ak waa secrétariat def tournée ci biir fédération yi tournée yooyu commencé nañ ko depuis lundi lundi ñu ngi yoon Fatick demb ñu yoon ko saas te ñu ngi kaw Kaolack suba ñu dem Nioro et cetera donc loolu mooy décision bureau politique parce que bureau politique nee na ñu waajal huitième congrès ordinaire mais balaa ñu dem ci huitième congrès ordinaire laaj na ñu def ay mission ci biir fédération yi waxtaan ak militants yi ba indiwaat unité ak discipline parce que xam ngeen ne parti bi dafa am ay jafe parce que am na ñu nekk ci parti bi créer seen mouvement di ko ooyee mouvement LD Debout donc loolu bu amee ci parti baax na ñu gën a waxtaan suñu biir. juboo am unité am balaa ñu dem congrès donc loolu moo tax bureau politique décidé ne war nañ waajal congrès huitième congrès mais balaa yooyu baax na secrétaire général def ay mission waxtaan ak militants yi ba parti bi retrouver unité am donc ñu ngi si tànk boobu maintenant dinaa ci wax aussi lii ay militants bu ñu organiser kuréel ci biir parti bi nar a jaay carte nar a def congrès ordinaire wala congrès extraordinaire loolu andul ak parti bi li mu ca mën a wax rek mooy sen vente carte ak sen congrès c'est nul et non avenu parce que LD parti bu am organisation la bureau politique moo convoquer congrès bureau politique moo décider également njaayum carte donc ñom buñu ñu sen carte wala buñu congrès buñu ñu defee seen congrès li ci mëna wax rek moy yefu caaxaan yefu xalé xale la ñoom seen gis-gis nee euh, dafa am benn minorité bu jël en otage euh, parti bi te ñoom dañoo jàpp ne war nañ xoolaat nataat seen àndandoo ak euh, président Macky Sall xoolaat mbir moom la te ñoom jàpp nañ ne tamit ñoo majoritaire ci biir parti bi lan ngay tontu ci loolu. waaw li may tontu mooy loolu ñun ñëpp ànd ci bureau politique ci li mu décidé mooy à mission yi bureau politique nee nañ ñu def bilan suñu compagnonnage ak Benno Bokk Yaakaar. donc nous devons ko def soit avant le congrès soit ci biir congrès mais su quelqu'un n'est pas Alé Nous avons une majorité qui biir parti Vous avez une majorité Vous jar un un comité de pilotage convoquez convoquer congrès parce que bi LD et mais léegi vous def ce congrès ordinaire bureau euh, bureau politique nous avons convoqué congrès comité de pilotage avons convoqué le congrès donc nous, nekk ci benn parti politique ndax avons une am majorité Il y a une structure régulière a un secrétariat un bureau politique mais comité de pilotage boo xam ne yow yaa ko créé pour convoquer congrès yoo xam nga loolu contradiction la ñoom dañuy wax rek dañuy def propagande di def dans la communication mais ñoom xam nañ ne amuñ majorité bureau politique bu ñu amoon majorité bureau politique bureau politique du 21 octobre bu ñu ko defee militants yi ñu jël parole ñoom ñëpp ñu ci ëpp mais le bureau politique désapprouve la LDD donc foo xam ne ñoom ñoo fa am majorité mais kenn du leen désapprouvé ñoom amul benn impact sur le parti ñoom xam nañ ko donc bu ñu amee majorité nañ jaar secrétariat wala bureau politique convoqué congrès pour am majorité kay ñoo créé benn comité de pilotage parce comité de pilotage bokkul ci suñu structure yi dañuy wax lu ñu lu ñu lu ñu neex rek mais ñoo xam nañ ne véritablement amuñ majorité ci biir parti bi ñoo xam nañ ko. Moussa Sarr maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf.